du yàq sama der ne man maa wax ne diine yëpp benn lañ christianisme ak islam benn lañ lu nekk mën nga fa toog jarul ngay ñëw ci islam mën nga toog foofu ndax yépp benn yëpp baax mu ne loolu maa ko wax ba ma déggee wax jooju gëstu naa ba xam kooku xam bajaan moomu jokkoo moom ba waxtaanee euh, ma laaj ko ndaw si mu ne ma xaw ma Christian tudd euh, ma laaj kan moo ko jox kan moo ko wax ni euh, sama audio boobu man maa wax loolu mu ne ma du moom waaye nag euh, xam na ndaw si daal man ko léegi jox ma pour ñu ma wax ak ne ma ndaw si nee na bu kenn joxe numéro waaye moom nee na du ne moom mu ko wax wax ji dégg nga léegi ma ne boobu ku comme audio boobu man maa ko wax audio kay boo ko xasee def moom too ko nañ ko teg li ñuy dégg ko ñëpp xam ne mën naa ko waaye loolu wax jooju amut eh, wëlbati wax la ak yàq wax te loolu dafa bëri ci réseaux sociaux yi li am mooy dañ maa invité benn groupe pour waxtaan groupe bu tudd qul jaa al wa zahaqa al baatilu inna al baatila kana zahuqan ñu invité ma pour waxtaan bi li ñuy waxtaan bi agsi ci ci alxuraan est-ce que dafa ñëw folli téere yi mu fekk wala dafa ñëw dëggal leen comme man ci alxuraan lay li gis ci biir mooy dafa ñëw pour dëggal téere yi mu fekk parce que la wax musaddiqan li ma benn yedde yi mu ne tawraat dégg nga kon musaddiqan li ma benn yedde yi la wax kon dafa ñëw dëggal ko fi jiitu euh, ma indi luy wane ne alxuraan dëggal na tawraat ba mu fekk ak injil booba mu fekk tawraat booba mu fekk fi ak injil booba mu fekk fi dëggal na ko gannaaw bu ko jubbante ndax li dalilu dëggal na ko fekk nañ suratu maida eh, luy wane ne alquran dafa ñëw yàlla dëggal na ne tawraat bëpp yonente fekkoon bu baax ndax damay faral di wax ne état bi yonent bi jiite woon Medina du wut état islamique mais état diina la loolu mooy seen différence état islamique ak état diina état islamique mooy état boo xam ne sariatu islamique lañ koy appliqué ci nag mooy état boo xam ne euh, ay diina ñoo fa nekk yu wuute diina ju ne di àtteewu si téere kon amoon na fa ñeenti diina diinay sharia islamiya ak diinay yahud ak diinay nasaraan ak diiney taaquut ñett yëpp ma nga foon ci biir Medina bi yonent bi ñëwee Medina fekk fi ay chrétien ki yëhoot ak musrikoon bi ñëwee ay jullit yu bari gëm léegi dafa def ñoom benn pacte benn déggoo ñu signé benn déggoo déggoo bu mooy lan mooy bu xay ñëwee ñun ñëpp nañ mànkoo nekk benn aar dëkk bi bu ay jeexee kenn ku ne mën nga dellu sa diina kenn du gund xasaal nit fii lu tax nga gëm diine bële gëmoo diine bee ku bëgg ñëw ci islaam kenn du la gund ku bëgg def sa diina kenn du la gund xasaal la ikra fi diin loolu ñu booboo ñu def fàtt ba bi tax na Medina ñeenti diine ñu nga fa woon wala ñeenti sharia boobu shariatu muhammadiya ak shariatu yahudiya ak shariatu nasraniya ak shariatu taaxut daaxotiya buñ ko may tudde noonu ah, saraxat daaxotiya mooy fi wax ne alam tara ila lasiina yaxsamuuna annahum aamanu bimaa unsila ilayka maa unsila min qabl yuriduuna an yatahaakamu ila taaxuuti waqad umiru an yakfuru bi wa yuridu seytaan an yudillahum dalaalan baidan xanaa gisoo ñi nga xam ne dañuy wax ne gëm nañ li ñu wàccee ci yow gëm nañu wàccee ci lu ko jiitu ñuy bëgg a àtte woo ca taaxut ba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 ñetti audio la sax waaye sama taxaw seetlu ngir mu gàtt dama koy def ci benn audio bu njëkk bi ñetti audio yëpp nag Cheikh Ahmed Darame moom moo ci waxte yaakaar naa sax moom moo ko wàcceel boppam ci groupe bi euh, jotuma ko woon a déglu nag wala jotuma ko woon a gis sax ba mbokk mi di Oustaz Maodo Faye moom moo si taaliq wax ci biir xam nag daldi ne alhamdulilah eh, ñetti audio yi Cheikh Daraame wàccee fii man déglu naa ko te bi ma ko dégloo itam maanaam am na solo lool te dana ma jaaxal lool nag naka la ka nit di mën a weddee daal wax ji daal fi mu egg ci xam-xame ak aw ciw yoon maanaam daal nu ko nit mën a kiiwe daal e, dana naqaree dajji daal lu naqaree dajji lay doon maanaam wax jooju e, ak yeneen maanaam wax ca daal wax ju wax yu wax yu wax yu bari te te rafet macha allah léegi nag ci tolluwaayu oustaz Maodo Faye ci ci ci ku ko xam man moo yóbbu ci liir audio boobu ak déglu ko ne sax xëy na su fekkoon ne man dama ko tijji rek mu nekk Cheikh Dramé mën naa ko bañ a yeggale ndax eh, na ma ko jàppee itam na ma ko jàppee ci wàllu xam-xam ay waxam waaye ba Maodo dafay waxee ne audio yi am na solo te maanaam yéeme na te aw na kiw yoon te daal dajji ko daal moom daal affaire bi jaaxal na ko te te nee na moom gisagul kenn ku li Cheikh Dramé wax kenn ku ko teggi wax yi day bari noonu rekk waaye daal dara du ci du ci du ci kii noonu euh, walla lu mel noonu daal la wax léegi nag loolu moo ma poussé pour ma liir audio bi wante bi ma ko liiree nag dama ne kon euh, am na benn mbir boo xam ne war na li war mooy ñu bañ a xeebal Cheikh Darame benn waxam waaw liir benn waxam ba jàpp ne wax ji daal àgg na ci suufee kenn waru koo tontu walla xam-xamewul ndax li xam-xamewul ci yow am na ci ñoo xam ne mooy jëmmi xam-xam ca ñoom ah li nga xam ne daanaka dangaa jàpp ne daanu na dàjjeeku na ba kenn mënu ko ba jarul kenn di ko laalaat am na ñoo xam ne jàpp nañ ne moom day tolloog aljibaalu rasiyaat nga xam ne daanaka jéem ko fay dijjati sonal sa bopp la wahal huddat bi nataxil waali summun wahal saddat sural iiril kilaabu la waykat ba doon wax moo tax nag ma déglu audio bi ba mu jeex audio bu njëkk bi ngir def ci taxaw seetlu ci audio bu njëkk bi kese kese kese rek moom loolu mooy mooy mooy sama objectif ci waq waqfa bii nga xam ne moom laay moom laay taxaw waaye nag laata ma cay tàmbali def audio sax dafa am lenn ci audio ba la jiitu moom dajji nañ ko ba noppi mooy wax jam wax ci Badiane xëy na bu fekkee ne Souleymane Badiane la ci la ci jublu ak yu mel noonu Souleymane Badiane moomu daati ñëw daati dajji wax jooju maanaam mooy muqaddima bi li mu wax ne diw moo doon yàq sama der après man ma woo ko wax ak nangam ak nangam yu mel noonu kañ tudd aw turam walla kañ tudd aw santam wala ka xel yëpp dem ne moom moo woote wala moom moo wax moom mu taxaw ne loolu musta am kon loolu moom wàcceel nañu e, coonab di raddu ca wàllu googa kon li nga xam ne moom moo ñu soxal rek mooy lan ci teg ci ay ay dégg-dégg ak i wax yoo xam ne aju na ci wàllu gis-gisam ci wàllu alquran ak yahud yeeg nasaraan yi ak e, ahlul kitaab seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi ci biir Médine lam ca wax lool rek ñun loolu insha allahu loolu rek la ñuy raddu euh, la jëkk ci wax ji nekk ci biir audio bii nag ma wàcceewaat ko sax pour mu gën a leer maanaam gannaaw ba ci Souleymane Badiane jëlee lam ca moom ba dajj ko ba mu tasaaroo fële euh, la ca des la ca jiitu mooy saxal gi Dramé saxal ne euh, yonent bi salaay salaam bi muy nekk Médine Médine ci boppam ñeenti diine ñoom ñoo fa nekkoon maanaam medin dafa nekkoon état euh, boo xam ne euh, diine la waaye du état islaamik te àtte woowul ci lislaam daal ci diine yi lay àtte woo te ay diine fa nekkoon dajaloo fa diine yooye fa nekkoon dajaloo nag nekkoon fa matoon na ñeent ba ca jiitu mooy diine lislaam ma nga fa woon diine yahuud ma nga fa woon eh, diine nasaraan ma nga fa woon ak diine ju ñuy tuddee diine taaxuut lii nag du lu wér maanaam séddale gii mu séddale ne eh, yahuud dafa nekk dafa am diine ñeenti diine fa nekkoon yahuud yeeg nasaraan yeeg lislaam ak taaxuut la nekkoon ci Médine ñaari mbir rekk la yahud yi ak ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii ñoo fa ñii ñoo fa nekkoon ñi ñoo nekkoon ci Médine wala boog mu indi ñu nasaraan yi nekkoon Médine ñooy yan nasaraan la ñoo nekkoon Médine ban di diine nasaraan ji nekkoon Médine ñi ko gëmoon ñooy ñan moom fuñ féete woon ci biir Médine ñoom fan lañ féete woon ci biir Médine ak wax ji wax ne ku nekk ci diine yooyu daf doon àttewoo ci téeréem ku nekk ci diine yooyu ñeenti diine yooyu ku nekk da doon àttewoo ci ci téeréem loola mosul am ci jamono yonent bi salaay salaam ci biir Médine ci biir Médine loola amu fa kon nasaraan yi muy wax moom war naa wax nasaraan yooyu ñooy ñan ñoom nasaraan yi fan lañ nekk ak luy saxal nasaraan yi nekkoon Médine lan mooy saxal loolu li mu wax ne taaxut dafa amoon diine ju fa nekkoon tamit moom mooy diine taaxut loola fan la fan la saxe maanaam diine yi taaxut ci biir Médine mooy lan waaye loolu lépp nag moom mi ngi ko teg ci ay aaya rek alam tara ila allazina yazumuuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yataxaakamu ila taaguuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu shaytaanu an yudillahum dalalan baida mu ne li nga xam ne moom mooy e, yahud yi wala bokk laaya jooju la sukkandiku wax ci laaya ji ne e, diiney taaxut dafa amoon Médine diiney taaxut dafa amoon Médine ci laaya jii la ko sukkandikoo moo di ne am na ñu gëmoon ahlul kitaab am na ñu gëmoon tawraat am ñu gëmoon liin linjiil am ñu gëmoon leneen ak leneen waaye am na ñu gëmoon taaxut ña gëmoon taaxut nag ñoom mooy ña nga xam ne kaanu yataxaakamuuna ila taaxuuti te loolu musul am ñi doon taxaakum ila taaxuuti mooy yahud yi te loolu dees leen ko tere kon diine ju ñu tuddee diine taaxut amul woon ci Médine tamit kon lafa nekk ca ca Médine mooy lan yahud yee fa nekk ak jullit ñi ñii ñaari camp yi ñoo nekkoon Médine moo tax boo delloo ci aaye boobu mu tuddoon moom Cheikh Dramé te mooy alam tara ila alladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka balaa ja jeex lay la la la sabab laay jooju ak ñamu ña laay ji di junj ña laay ji di junj yahud la akub jullit maanaam am naa feq ñoo am problème ba tey ñaari camp yi ma waxoon yooyu rekk fa des mooy yahud yi ak jullit ñi ci biir jullit ñi am na ñu woote woone ay jullit lañ te fekk ay naafeq lañ ñooñu nag kenn ci naa feq yi ak kenn ci yahuud yi ñoo am problème ñoo am problème léegi nag kan moo leen war a àtte ñu wuute ndax ku nekk léegi da ngay xool euh, euh, fan nga wóolu pour ñu àtte la fa yahuud bi daal ne nañ dem ci yonent bi mu àtte ñu ndax yonent bi moom dëgg rek lay wax amul loo koy jox wala loo koy naa naafeq bi nag xam na ne buñ demee ci yonent bi mbir ma day leer mu ne man d'accord ma loolu maa ngi d'accord nañ dem ca Kaab ibn al Ashraf mu àtte ñu moom yahud bi itam xam ne buñ demee ci yahud bee manes na koo ger ba ñu wuutee nag ñu ne dañuy dem ci benn kaahin benn jabarkat wala benn taaxut ca fu ñuy wax na loola nag ba loola amee nag ca la yàlla wàccee laaya jii nag alam tara ila alladina yazumuuna annahum amanu bi ma unzila ilayka mooy naafiq bi moom mi ngi jàpp ne gëm na li ñu wàccee ci yow naafiq bi loolu la feeñal wa ma unzila min qablika yahud bi gëm na ne la ñu wàcce woon ca la ko jiitu moom gëm na ko ba pare ñoom ñaar yuriduna an yataxaakamu ila taaguuti waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu cheytaanu an yudillahum dalalan baida loolu mooy sababu wàccug laaya ji kon laaya ji mënula defaral créer la benn équipe bu tudd diiney taaxut nga xam ne dafa am ñu ko gëm di ko di ko di ko di ko kii waaye li am mooy ay yahud moo fa nekkoon ak ay jullit kese ñoo nekkoon Medina léegi nag mu des benn mbir moo di ne moom bi mu créé équipe boobu moom Dramé ñeenti équipe yooyu mooy yahud yi nasaraan yi jullit ñi ak taaxut diine yahud diine nasaraan diine jullit diine lislaam ak ak diine taaxut ñeenti yooyu bi mu ko créé daal ne ci biir ñeenti yooyu nag bañ ñëwee Medine nag dañoo signé ak ak ak pacte boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk pacte ba mooy ku nekk respecté mel na sa diine mën nga koo topp waaye bu xeex jotee ñun ñëpp ñooy xeexandoo après ku nekk day delluwaat ci diineem ak i pas-pasam nee na noonu ci daraame selon li daraame wax mooy noonu la diine ji mbir mi noonu la doon demee ci biir Médine mooy ku nekk ak la nga gëm eh, amul contesté kenn ci lenn te nee na pacte bi yonent bi bindal yahud yeeg bindante ak yahud yi ak ña nekkoon nasaraan yeeg diine taagut yi pacte ba la ca nekk mooy mooy eh, eh, mooy lii mooy yahud yi dañuy des ci seen diine eh, wala di attewoo ci seenub téere lislaam di attewoo ci téereem nasaraan yi di attewoo seenub téere taaxuut yi nag nee na moom comme xamul lu mu leen atte woo mu ne waa taaxuut yi moom ñoom ñu ñoom itam ak ak la ñu gëm léegi nag ñii ñëpp nag su xeexe jotee ñoom ñooy ànd xeex loola du dëgg wérut mu ne pacte bi la ca nekk ca pacte ba mooy ku bëgg a dugg lislaam kenn du la téye am nga ci droit ku bëgg a des ci sa diine itam am nga ci droit loolu moom war naa wax fan la kii bi nekk ak mada sixatu wasiqa boobu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Médine ba xam bind nañ wasiqa boo xam ne daf koo def ci diggante yahud yi ak seen diggante ak yahud yi ak pacte bi nga xam ne moom la Dramé di saxal ci lan la war a sukkandiku moom Dramé ba ne loola lu wér la maanaam am na pacte bi am na te bind nañ ko te eh, article yi nii la demee comme moom ni mu koy waxee noonu luy wone ne wasiqa ba wér na wér na wasiqa boobu wér na lan moo koy wone comme moom nee na li ëpp ci xadis yi wérut la ca wér maanaam matul huit pour cent la waa wasiqa bi lu koy wéral moom lan moo koy wéral balaa sax ñuy dem ci lim wax te amul ci biir wasiqa bi maanaam jëmmi wasiqa bi nga xam ne amoon na ci euh, bi yonent bi nekkee Medine loola lan mooy wéral loolu tax loolu werante wu rëy rëy moo ci nekk nassu wasiqa bi ci boppam ibnu isxaaqa moo ko njëkk a indi bi duuni isnaad ibnu kathir ibnu sayidi naas ñooñu ci ibne isxaaqa lañ ko jële bi duuni isnaad bayhaqi itam indi ko eh, indi ko moom itam ci benn tariq boo xam ne am na ñu bari ñoo xam ne wéruñu ci ibnu abi xaysama maanaam yoon woo ko topp danga am problème yoon woo ko topp da am problème am na yoo xam day ñëw mais du am benn bande maanaam yahud yi duñ ci am maanaam liñ li li ñu wax na yonent wax na ko ci biir yahud yi ak yahud yi nangam comme li Dramé wax yooyu am na yoon yu muy jaar yoo xam ne lañu siñe ndax lañu siñe signé ci pacte booba la ci ëpp du yahud yi la ci ëpp diggante muhajiroon yeeg lansaar yi la yahud lenn la ci rek ca biir pacte ba te am na yoon yoo xam ne maanaam waxu yooyu jëm ci yahud amul ci amul ci tariq yooyu kon moom fan la mën a sukkandiku man weddiwuma pacte bi mais moom fa mu war a mën a sukkandiku ba saxal pacte ba moom kooko jaare na fa xadis yu bare bare bare bare yi muy weddi wéree ci yoon woowu mu jaar waaw ndax boroom xam-xam li ñu dajji moom mooy wax ne wasiqa bi moom mawdua la loolu loolu xëy na sax loolu ëppal la waaye daal jëmmi wasiqa bi saxal ko moom maanaam wasiqa bi puwaawam àggul ci darajey xadis bu wér darajey xadis saxiix lu dul mbir ya nga xam ne wax nañ ne ñëw na ci wasiqa bi te yeneen xadis ñëw saxal saxal loola ci lislaam wala saxal loola ci waxu yonent bi sallallahu ne yonent bi waxoon na ci Medine ne nàngam ak nangam loola ñu wax ci xadis ba te xadis ba wér loola suñ ko gisee ca ca eh, eh, wasiqa ba mu nekk fa ab bande wala ay bunut loola mënees na koo jël ndax loola ñëw na ci weneen yoon ci yeneen xadis wéree fa wéree fa waaye jëmmi wasiqa bi ci boppam moom daraame fan la mën a jaar ba tëral ko ci ay yoonu xam-xam ba wasiqa ba wér ci lan lay tege moom ci lan lay tege kon balaa sax daraame di wax ne yonent bi ba mu ñëwee dafa siñante ak gaa yi pacte te pacte ba mooy ku nekk dañuy respecte sa diine eh, léegi ku bëgg dugg ci lislaam mën nga ci dugg ku bëgg a des ci diine yahud yi mën ngaa des ci diine yahud yi àtte woo ci sab téere te lool sa nekkul ci nekkul ci affaire bi de waaye même bu ca nekkee jëmmi loola ci boppam mënoo koo téye wasiqa bi ci boppam nga jaar ci yoonu xam-xam ba wéral ko carrément carrément lu dul ne ka koy wéral mooy kay wéral xadis yëpp wala xadis yi ëpp waaye ka nga xam ne daanaka moom daa weddi xadis yi nga xam ne ñëw na ci xadis téere yu wér yi mu weddi ko ba wax ne huit pour cent moom mooy la wér ci xadis yëpp la ci leneen la ci ëpp yëpp ay mawdu la ak dañ koo sosal yonent bi ak yu mel noonu comme ni ko waxee ci audio bu njëkk ba ki taxaw taxawaay boobu moom amul yoon wu mën a jaar ba mën a wéral wasiqa bii waaw ba mën a man moom mën naa ko def wala mën naa ko jox benn itibaar bi waaye moom Daraame waru ko mën a jox loolu ndax mu daa weddi xadis yoon ñoo gën a wér lii ñoo gën a wér lii wasiqa bi comme ni ko waxoon ibnu isaaqa inne ko ci siiraam bi duuni isnaad bayhaqi indi ko jële ko ci ibnu isaaq waaye ci isnaad boo xam ne saad ibnil munzir moo ci nekk bàyyil mu wadd ibnu abi xaysama indi ko ci tariq boo xam ne ku ñuy wax Kuseyr al moom moo ci nekk te wax nañ ne yarwil mawduat Abu Ubayd al Qasim ibn Salaam indi ko ci isnaad boo xam ne ci e, isnaad munqati la ci Zuhri la yem marasilu Zuhri ak la ca borom xam-xam yi léegi nag loolu nga koy toppee kañ ngay am ab wasiqa bu wér lenn rek moo am mooy am na nusuus ay texte yu nekk ci wasiqa ba yoo xam ne téere sunna yi indi nañ ko buxaareeg muslim ak yu mel noonu yooye nag ay xadis yu wér la moo tax bu nekkee ca band ba band booba loola nekk ca xadis yu wér yee dañ koy mën a jëfee dañ koy mën a jox itibaar ndax ñëw na ci ay xadis ñëw na ci ay nangam ak nangam yu mel noonu kon آه، وثيقه بمي نونو اعتبار بو ري ري ري ولا دوله جو ري ري ري من حيث الصحه من حيث الاحتجاج موم لا امول موم لا امول آه، من نا ام نك مو ام جارين دراسه تي دراسه تاريخيه nga xamne manam tarikh mom lamay soxla ci wir bokut ak buñ doon jëfé dara ak hadith euh, ak euh, ahkam yek yu mel non Euh, comme ni ko borom xam-xam waxee nga xam ne wàllum xadis ni muy tarale bokkut ak euh, wàllu siira ni nga xam ne noonu lay noonu lay kii te lool sax ñëpp ànduñu ci waaw ah, am ñoo xam ne jàpp ne siira ak xadis ñoo yam yëpp lañu war a taral ndax yëpp ay axkaam moo cee génne rek euh, léegi nag kon war na ci daraame mu wéral wasiqa bi ci côtéem ñaareel ba mu indi tex yi mu wax li mu wax ne mooy respecté diine yahud yi ku bëgg a dugg ci diine yahud mën nañ laa bàyyi nga dugg ci ku ca bëgg a des des ca di atte atte woo sab loola mu leeral ko fan la nekk ci biir wasiqa bi pacte bi muy wax fan la ci loolu nekk ndax pacte bi la ca gën a neex ca la ca nekk ci ba bunt bi nga xam ne mooy wax ci yahud yi mooy lépp lu ñu werante yahud yi lépp lu ñu werante ak ak werante bu am lu am ci yonent bi lañuy delu ci yonent bi lañuy delu dellu loolu mom moom la mom la mom la mom la wasiqa ba loolu la wax moo di ne wa innahu ma kana bayna ahli hadhihi as-sahifa min xadas min xadasin aw istijar yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah wa ila muhammadin rasulillah lépp lu ñu werante ci yonent bi mooy al al al mahkamatul ulya mooy yonent bi salaay salaam ci moom la ñuy àtte woo ji ci moom lañuy ñuy àtte woo ji kon moom li ko dese pour mu wéral xadis beeg la nekk wasiqa beeg la nekk ci biir wasiqa ba te mu wax ne moo ci nekk te mooy ku nekk des ci eh, diine ju la neex et di àtte woo sa téere ba la neex loola moom war na koo war na koo leeral fan la nekk indi ñu texte xadi texte wasiqa bi texte li yonent bi wax ne wala band bi yonent bi bind ne man ngaa des ci sa diine di àtte woo sab fi may jeexale mooy dafa am loo xam daraam da koy tàmm di ko wax toujours te duñ ci bàyyi xel mooy dafa bëgg dugal ci bopp nit ñi ne alquran bi mu ñëwee da doon corriger tawraat loolu da koy wax lu bare bari ba nit ñi dañ ko xaw a tàmm loola musta am alquran bi mu ñëwee mosu corrigé wul tawraat ci lenn déedéet alquran ñi mu doon corrigé mooy ña wax ne dañoo gëm tawaraat ñoom la corrigé ñoom ci seen jëmmi bopp ak seeni tasarrufaat yahud yi lañu làq te mu nekkoon ca tawraat mu feeñal ko wax ko loolu du correction de correction wu corrigé wul tawraat corrigé wul linjiil ñan la corrigé yahud yi ak nasaraan yi moo tax comme moom Dramé dafa am ay pion yu muy teg pion yu muy njëkk yu muy teg mooy y alxuraan dafa ñëw def ay correction ci tawraat ak linjiil suñ la gëm loo loolu kon lépp luñ def correction correction lépp luñ ko def rek loola mënees na koo jëfee mu ne gannaaw bañ ci defee correction nag tawraat booba baax na linjil booba baax na fekk alquran mosul def benn correction na wax benn correction boo xam ne dafa nekk ci biir tawraat islaam ñi diine ji ñëw wala alquran ñëw daal di ne loola nekk ci biir tawraat wérul nangama wér mumaarasaatu yahud yeeg nasaraan yi lool la alquran ñëw di ko corriger di leen wax ne loola nekkul ci tawraat nekkul ci linjiil ñooñu lay corriger mais corriger wul tawraat amul correction bu mu def ci tawraat ak linjiil seen téere yi alquran defu ci correction ñoom la defal correction ci seen yi ñu gëm di gëm ne mi ngi ci biir tawraat di wax ne mi ngi ci biir tawraat wala ñu koy woote woo wala ñuy xool la nekk ca tawraat te arrangé wu leen ñu génnee ko alquran ñooñu la fi nekkal ñoo ñu la jaamaar lool mais jaamaar la wala benn téere muy tawraat wala muy injil di xool la ca nekk te mu koy dindi loola alquran musul def loolu moo tax mu ne léegi dañ mu corriger leen ci ne Isa doomu yàlla doomu yàlla la loolu dañ koy dañ koy correction yooyu ñu leen defal correction yooyu ñoom lañ ko def mais ñoom defuñu ko yàlla defu ko wala alquran defu ko tawaraat wala mu def ko linjil ndax injil boo ca demee Isa doomu yàlla nekku ci Eh, eh, naan sa ki yàpp mbaam xuux nekku ca yi yi nga xam ne lislaam dafa ñëw araamal ko eh, wax leen ko yooya nekkul ci tawraat bañ koy corriger wala mu nekk ci linjiil bañ koy corriger kon lislaam alquran ñëwul di corriger lu dul yahuud yi ak nasaraan yi kon bu daraame bëggee wax ne wazifab alquran ñaari ñaari taxawaay la ñëw mooy ñëw di corriger linjiil ak tawraat ak di def ci ñoom si ay ay correction euh, ba noppi nag ci weneen wàll gi mu nekk ak leeral hudan wa rahmatan lil muminina loola amul ndax moom mënul wax lan moo nekkoon ci tawraat alquran ñëw daan ne nangam ji nekkoon ci tawraat wérul indi ci correction amul li mu mës a corrigé mooy li yahud yi ak nasaraan yi di def nga xam ne yuxarrifuuna al kalima an mawaadiihi nga xam ne dañuy gëm lenn di bàyyi lenn te bokk na ca la nekkoon ca tawraat mooy war a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu alquran moo ñu ko nettali الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لكن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Euh, daraame daat cee jël daat léegi daf ay correction la maanaam la nekkoon ci seen téere ya moom lay corriger amul lenn lu nekkoon ci benn téere tawraat wala linjil lislaam ñëw daat ne loola wérul indi li wér moom li ñu wax mooy ñoom li ñu def te yàlla araamal ko ñu daganal ko seen bopp wala yàlla daganal ko ñu araamal ko seen bopp yooyu la ñëw di leen corriger ci loolu ak wax leen ne loola ak jàdd yoon la ak ñàkka jëfe la nekk sa sa téere sax yow maanaam même su fekkoon ne ñoom dañoo wax ne gëm Moussa dañoo gëm tawraat la nekk ca tawraat ak la nekk ca linjiil jëfewuñ ci dara kon ñoom gëmuñu tawraat gëmuñu linjiil gëmuñu yonent bii ñëw gëmuñu alxuraanam ji kon nag taxawuñ fenn looloo tax ñu nekk ay yéeféer foofu la ñuy taxaw ni loolu moo nekk ci audio bu njëkk bi moom xëy na nag beneen audio bi ñu tontu ko fi waxtin xaadim incha allah wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi nuyoo di ziyaara bu baax a baax eh, xam naa yellu woon sax ñu wax ba noppi di waxaat eh, ngir bañ a baril wax ji eh, tànqal nit ñi itam waaye gannaaw sunu wax ji Cheikh Dramé mi waraloon wax ji dafa indi ay leeral leeral yooyu nag maanaam euh, dafay laaj moom itam ay ay leeral ndax leeral yi daa mujj soppaliku aw lënt ndax <coughs> la jiitu ci li ma wax dama ne Cheikh Darame toujours dafay wax ne tawraat ak linjiil bi yàlla ñëwee ak euh, alquran bi mu ñëwee dafa def ay correction ci tawraat ak linjiil maanaam correction yooyu mu ci def nag gannaaw ba mu ko ci defee ba noppi tawraat booba baax na linjiil booba baax na gannaaw ba correction yooyu ñëwee lii la waxoon te yaakaar naa itam ci loolu la nekk ba léegi bi ma ñëwee nag ma wax ne loola amul maanaam alquran ñëwul benn yoon di eh, corriger tawraat walla injiil corrigé wu ko itam ci lenn ci lenn ndax téere la boo xam ne ci yàlla la jóge linjiil téere la boo xam ne ci yàlla la jóge lim ma bëgg a taqal tamit waxuma ko maanaam wax ne eh, dafa am leneen lu doon corrigé mooy lañ yokk ca tawraat déedéet waxuma loolu itam man damaa wax ne tawraat ak linjiil comme ñaari téere kooku alquran ñëwu ci pour def ci benn correction alquran li mu doon corrigé mooy la ay nit ay nit te mooy yahudi ak nasaraan yi yi ñu araamal ci seen bopp te gàll ko tawraat ñoom pas téere ba de ñoom ci boppam lay wax ne li ngeen wax amul ci tawraat maanaam day weddi ay waxu ñuy taqal benn téere waaye amul lu nekk ci téere ba loo xam ne alquran day ñëw di ko weddi walla mu ñëw di ko corriger li muy def mooy lan mooy ay nit yu wax ay wax taqal ko téere ba mu ñëw wax leen ne lii ngeen wax amul ca téere ba loolu mooy correction loolu mooy corriger nit ñi paa téere ba loolu la alquran di def lépp loo xam ne dañ ko nëbb génnee ko ci tawraat wala ñu xotti kayit yooya ca tawraat ak linjiil alquran bu ñëwee day saxal loolu day saxal ne am na lu leen loo lu ñu nëbbu ci téere ba man ma ñëw man alquran nag ñëw di ko feeñal loolu du correction correction mooy lan nga fekk lu dëng ci téere bi wala loo xam ne dañ ko amal ci téere bi nga ñëw dindi ko def fa leneen loolu mooy correction loolu nag alquran defu ko ci tawraat defu ko itam ci linjiil waaw kon na leer naññ man waxuma ne dafa am lu ñu yokk ci tawraat wala injil alquran ñëw di corriger loola ñu yokk ci tawraat déedéet nit ñi seeni tasarrufaat la alquran di wax ñoom ñu woote daw làqu ne ñun tawraat lañ gëm mun leen tawaraat ga ngeen gëm lii ngeen wax nekku fa loolu koy ilzam la waaye maanaam moom kee lay defar Eh, Cheikh Daraame ba mu demee ba xam ne nag maanaam corrigé gi amul léegi dafa changé baatu corrigé léegi nee na du corrigé sax mais taxliil la maanaam dafa am lu araamoon ca tawraat ak linjiil yàlla daganal ko ci alxuraan loolu tamit kenn du tuddee correction kenn du ko tuddee maanaam lu araamoon ca eh, yahud ya araamoon ca tawraat ak linjiil yàlla daganal ko ci alxuraan correction mais loolu du correction charaa yu bokkul la yàlla wàcce woon dara araamaloon ko ci ñoom léegi ñun ci sunu lislaam yàlla daganal ko léegi ban ban rapport la am nga ne daa corriger lële déedéet dafa am loo xam dafa araamoon te la araamoon ma ngay sax di araam ca tawraat ga yàlla wàcce woon ba tey dafa am leneen lu ñëw te muy alquran la muy validé loolu mooy liy validé waaye loolu validé wul ci yahud ak nasraan de dafa validé wu ci lislaam ña koy jëfee mooy waa lislaam te lislaam googu mooy li fi des kenn du àttewaat kenn àttewoowul ci tawraat wala injiil fi mu toll nii li ñu àttewoo mooy lislaam téere bi yàlla bii ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax nag ne yàlla dafa waxoon ci tawraat ne wa ala alladina haadu loolu wax ko ci tawraat ci fii la ko waxee ci fii ci ci euh, alquran jii la ko nekkalee ne wa ala alladina haadu du ci jullit ñi de yahudiya ca ñoom araamalal nañ leen ca ñoom nangam ak nangam ak nangam loolu araam nga kañ la dañ dañul musul dañ araam nga moo fa nekk ndax loolu li ko waral boo demee ci xurtu bi def naan la li tax yàlla subhanahu wa gannaaw ba mu waxee lam mu araamal ci xeetu yenent bi salaa salaam mu teg ca nag la mu araamal ca yahud yaak nasraan te mooy wax jam wax ne wa ala alladina haadu xaramna kulla di zufur wa min albaqari walganami xaramna alayhim shuxumahuma illa ma xamala zuhuruhuma aw ilxawaaya aw maxtalata bi azm dalika ba jazaynahum bi bagihim wa inna la saadiqun mu ne loolu li tax yàlla def ko nag lima fi dalika min takzibihim takdibihim fi qawlihim inna allaha lam yuharrim alayna shay'an yahud yi ñoo waxoon loolu ñoo waxoon ne yàlla araamalul ci ñun dara ci tawraat dara la araamalul ci ñun wa innama nahnu xaramna ala anfusina ñun ñoo araamaloon ci suñu bopp yàlla wàcce aaya bii nag ngir wax leen li wax yéen yahud yi du dëgg lay dëgg mooy ca tawraat araamal nañ ci yéen yii yii ñu araamal ci yéen nag du caagéene alquran dafa ñëw ngir corriger ko ne leen léegi araamatul ci yéen yéen yahud yi mën ngeen koo jëfee déedéet loolu moom Cheikh Dramé mi ngi koy layee ci beneen aaya boo xam daan qul laa ajidu fi ma uuxiya ilayya muharraman ala taa'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw laxma xinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li gayri ñaari aaya luñ jote yeneen bi mooy wax ne laa ajidu fii ma uuxiya ilayya li ñu waxyu ci man gisuma ci gisuma ci amu ci loo xam ne dafa araam ñu koy lekk lu dul nangam ak nangam liñ li ñu li ñu wax yu ci man fii ma uuxiya moo tax boroom xam-xam yi ne fii ma uuxiya mooy mooy alquran فلا ينافي تحريم ما أوحى ما ما أوحى إليه في غير القرآن من أم لنن أرام فنن فضل القرآن بنن تيري كم لغا خمنا وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظهر داخ توراة الإنجيل لولا أرامون نفا كي سنو الإسلام كي القرآن كي القرآن لي مو في أرام loola corrigé wul ne tawraat la fa nekkoon dañ koy changé léegi def fa ne léegi dafa dagan déedéet téere boobu jàll na beneen mbir fi nekk fi mu toll nii mbir mi fi nekk na ku ci bëgg da ngay dugg si mënoo taxaw fee yor sab téere bu tudd tawraat nga ne léegi correction yi fii lañ koy jëlee dañuy jëlee fii di dem liggéey ji fële maanaam dañuy jël ci alxuraan di dem di soppar ñi ca tawraat déedéet moom tawraat ci boppam moo validé ci tawrat nak la ngeen doon bañ naan kenn araamalul ci yéen dara lola nak amna wa ala alladina hadu haramna naa kulla di zufur waaye ci sunu l'islam ji nak al alquran ji la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuta maytatan aw daman masfuhan aw laxma khinzir waaw kon li dagan mi ngi dagan ci l'islam dagan ci alquran la aram ma nga aram ca yahud aram ca E, e, tawraat tawraat booba loola moo ca araam ca la yàlla waxoon foofa lii ñëw ci alxuraan nag daganal loolu lan lañ jote léegi est-ce que yahud bi day ñëw ci alxuraan pour corriger ci tawraatam ba mu yor déedéet moom tawraat ba ci boppam moo val alxuraan jii moo validé ak yonent bi moom bu leen munta munta gëm ñoom ñaar sawara rek moo nekk ci kanamam beneen beneen kii bi may kii mooy wasiqa wasiqatu e, taahud bi ca ca Médine xam nga e, dañ dama dégg ci yow Cheikh Tarame nga wax ne xadis yi daanaka yu bëree baree bëri des ko du du dara maanaam huit pour cent moo ci wér la ci des lépp te mooy liy taxawaalu ci saaxa bi dara wéru ci kon daanaka ñu dañoo war a teey lool ci xadis yi teey lool ci li ñuy riwaaya ndax li ci ëpp huit pour cent moo wér leneen lépp quatre-vingt pour cent wérul quatre pour cent wérul kon yow yaa ngi dajji ay xadis di sànni waaw kii dajji xadis di sànni nag bil axra bala moo wax dara ne nangam amoon nag dafa waroon am lu ko dëgëral kon bala ngaa saxal ne dafa am ay diine yu amoon ci euh, jamono yonent bi sa sam ci euh, Médine waaw yonent ba mu ñëwee fekk dafa yahud yi waaye est-ce que fekk dafa ay nasaraan lan mooy dalil bi est-ce que fekk dafa ay taaxuut ab diine boo xam diine taaxuut la loolu lan mooy dalil bi maanaam comme da ngaa dajji quatre-vingt pour cent ci xadis yi yow looy waxati daa war a wér amma nag nga ne yow même li nga wax noonu mënoo koo wéral maanaam wasiqa bi ci bopp boppam mënoo koo wéral kon naka nga mën a xamee ne yonent bi sallallahu alayhi loolu amoon na te moom saxaloon na ne yahud man naa des ci diineem ku bëgg a dugg ci diine yahud kenn waru laa tere ku bëgg dugg ci diine islam kenn waru laa tere ak nangam nangam noo noo mën a saxalee loolu ne jóge na ci yonent bi wala yonent bi saxal na loolu pacte boobu yonent signé na ko bala ngaa wax ne yonent signé na ko kay dafa war a am lu war a wér yow yaa ngi dàq quatre-vingt pour cent ci xadis yi di sukkandiku ci wasiqa yoo xam ne yow yaay wax ne man de mënuma ko wéral mais est-ce que am nga droit kon pour wax ne quatre-vingts pour cent yi wéru te mooy liy taxawaalu ci saaxa bi waaw léegi sa wasiqa bii moom bu bu fekkee ne lu wérul la lu tax nga ci sukkandiku bu fekkee ne mënoo koo wéral lu tax nga ci sukkandiku lu tax nga ci sukkandiku ndax loo xam ne dafa am alaaxa ak yonente bi kenn wërta wax ne Euh, maanaam euh, wasiqa taarixiya la léegi dañ koo indi noonu pour taarix pour nangam déedéet dafa am alaaka ak yonent bi yonent su fekkee dafa signé dara signé ne nangam man naa nekk daganal naa nangam sama pacte bi mooy nangam ak nangam nit ñi dem dox ci loolu ñu nettali ko fekk wérul kon tuumaal nañ yonent bi ne ànd na ci nangam ngir ñu signé ko ne nit ku nekk mën naa def ci diinam di àttewoo téeréem loola yonent saxal na ko ak nangam nangam te fekk yow fi nga ko teg wérul man jàpp dama man li ma doon ragal mooy dama ne xëy na Cheikh Dramé dafa am ay yeneen ma maraaji yu garaaw yoo xam ne bu fa demee moom wasiqa bi moom day wér moom mais am maa yow yow yaay d'accord ne wasiqa bi wérul e, amul xiima boobu nga xam ne mën nga cee layoo te yow kat sa wax yëpp yaa ngi ko dëgëral ci wasiqa bi yaa ngi ko dëgëral ci wasiqa bi kon ma delluwaat baamtu wasiqa bu wérul kuy dàq xadis waru cee sukkandiku muy benn ñaareel ba yonent salaay salaam ak alquran mos ñoo ñëw di corriger tawraat wala injil déedéet am na lu araamoon ca xeet yu jëkk ya dagan ci ñun loolu mooy correction te bi muy dagan ci ñun waxuñu ñamu araamoon ci ñoom fii la ñuy corriger de ñamu araamoon moom dañuy dugg ci diine ji wala ñu dem sawara rek amul weneen yoon weneen yoon amu fi mooy gëm yonent bi ànd ci li mu wax lam daganal mooy dagan lam araamal moo araam leneen luñ naan araamoon na fële loola konteetul waxuma nag nga naan yahud yi ñooy ñëw ci alxuraan di corriger seen tawraat ga nga xam ne jàll na loola munta nekk ay fola salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu groupe euh, qul jaa alxaq wa zahaqa albatil ñu ngi ziyaare Modou koy ziyaare bu baax ñu ngi koy ñu ngi wax yi mu wax Dramé wax la ju jotal amul kenn amu ci yaakaaruma ni am na am na ay eh, luñ ci mën a dajji sànni eh, wante eh, Maodo Maodo Faye man li ma jaaxal ci Maodo li may laaj mais Maodo aaya bi nga indi ban relation la am ak li Modou Kama wax ni moom la Dramé wax di wax ni maanaam alquran dañoo di corriger tawrat maanaam aaya bi nga indi nii man loolu xaw na maa jaaxal daf euh, dégg naa nga ndax ni ko alquran waxe noonu loolu mooy la ne ci linjil injil wala maanaam yow li ngay wax ni amul ak relation aaya bi man ñëwaguma sax ci ni nga jànge aaya bi ak yàq yi ci yàq maanaam aaya alquran boo koy jàng demal nga liir ko ba pare parce que maa ngi dégg nga ni wasalaamun alayya loolu moom amul ci alquran wasalaamun alayya amul ci alquran moom parce que am na différence bu am wasalaamu alif ak laam ak wasalaamu nga nekk nga yàlla yu wax ca yaxya ñaar yooyu euh, différence dafa am différence wasalaamu ak wasalaamun alayhi loolu la ndaxte lii alquran la foog ñu corrigé la ci loolu pare beneen bi mooy wa yow ma ubasu doo yow ma boo nee wa yow ma abxasu nga maanaa wax nga leneen ba na fokk bala nga ci al bi maanaam fokk nga jàng ko ni ni mën a ni mu nekk ba pare beneen bi mooy aaya bi c'est-à-dire euh, yàlla xam na ni euh, du wàññi la du yabeel du dara du xulo yaakaar naa tamit yow da nga ma comprendre euh, dañuy dañuy dañuy leeralante rek loolu comprendre nga ma ci loolu macha allah di la respecté loolu nag sama wante lii wàllu alquran la alquran duñ bàyyi ku koy jànge noonu rek foog nga jànge ko ni ko yàlla waxe wala nga seet benn aaya moo ko ante comme ni wa yow ma abxasa moom amul ci alquran xool bu baax a baax wa yow ma ubasu ak abasu diffère soppi maanaa bi wa salaamun alayhi bi yàlla di wax ci yaxya bokkul ak wasalaamu alayya te man ban relation la am ak lo beug wax ci aya bi isa ibn maryam yàlla mo ñi netali ni li li la isa wax yow da ngay laaj ndax qissa bi yàlla wax nako ci linjil wala wax ko ci linjil koku ñun concerné wuñu concerné wul islam xam nga la moo ñu concerné moy ni yàlla netali nañu ci alquran alkarim قصة مريم قصة مريم نك أمنا na lu ne ci qissa bi mooy yax mooy xale bu ndaw a ndaw ci berse bi wax na daan ni inni abdullahi aataani alkitab wa jacalani nabiyan wa jacalani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bilsalati walzakati ma dumtu xaya wa barran biwalidati walam yajcalni jabbaanan shaqiya wassalaamu duwa salaamun de wassalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcasu xayan wa yow ma ubuas du wa yow léegi nag aaya bi nii lañ ko yàlla nekk yow loo bëgg a ci aaya bi moo ma jaax maanaam ban iskaal moo am ci aaya bi ban subha moo am ci aaya bi aaya bi qissa la bu ñu yàlla di nettali léegi nag concerné wuñu ñu jéem a seet ndax qissa bi am na ci injil wala la wala déedéet ndax am na ci injil wala amu ci injil loolu concerné wuñu concerné wu affaire u affaire affaire yooyu sax euh, correction loolu amul ñëwul sax ci ci ñëwul ci ci aaya bi amul amul ak relation ak li nga bëgg a wax maanaam loolu fokk ñu ñu amul relation relation daa amu ci amul benn relation xissa la bu ñu yàlla di nettali léegi nag est ce que nii la ko injil waxee wala waxewu ko nii loolu concerné wul ab jullit déedéet suñu yoon ca injil injil ba la ca nekk suñu yoon ñëw ci jéemuñu koo seet jéemuñu koo xam lu tax alquran ji moo ñu day sëkk walif injil ci wàllu ci wàllu jël li ne ci biir alquran xalaas intaal amr c'est-à-dire xawma lan la lan la lan la lan la lan la daraame euh, jublu ci ci ci ci corriger baatu corriger comme li nga wax xam naa ni bu ko waxoon ci wolof nag bu ko waxoon ci wolof ci lay gën a parce que boo nee corrigé ñu dikk ñu daal ko daajjile daajjile wax léegi comme mel ne Maodo Faye di daan déedéet xamula luy corrigé lu jublu léegi kon na wax ci wolof est ce que maanaam est ce que daf ci jublu ni alquran dafa ñëw ngir weddi ngir weddi am lu muy jubbanti di jubbanti tawra wax jooju moom min abtalil baatil ba wax jooju min maanaam ca waxi caaxaan yi gën a ngand ci àddina mooy waxu caaxaan mooy lii mu wax bu fekke mu lolu djublu lolu lolu sax euh euh ñakkel sala للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله لول كتاب يلا وخانا التوراة داني يعني وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ترى دفع دفع نيكل نيكل تيرا بلو تيرا لبو خمني نور لبنج وانت نك القرآن الكريم جي لتنة أحكام يتنة التوراة نيال يوني وانتين موسى نيوم لا كونسيرن نيوم التوراة لينو سيق التوراة موي جمني يالا واتي انا واتي موسى فارننجي lu ca lu ca nekk ak injil ndax aay ndax aay bi ma nga ca am ca loolu concerné wul ab jullit